digal itam ñiy conduire oto yi ñu sàmmonteeg loolu li mu laaj ñu daw ndànk boroom kër gi di sëriñ Babacar Sy daana ci insiste lool di wax ni yabu leen ay saaku ay nit ngeen yab te booba gàmm meluñu booba gàmm nit ñaa ngi ñëw waaye ni mu yaatoo tey nit ñi di ko topp di ñëw yaatoowul woon noonu bëgg nag ñu sàmmoonteeg li mu laaj rekk ci teey ci buy conduire xool ci sa kanam def ndànk buy xëccoo priorité <coughs> bu sa mbokk di xëccoo priorité yow xëccool mucc rek loolu rek moo am solo waaye xëcc jëm mu xëcc jëm ngeen daje karaj karaj taxaw ku ne tardé jaru ko jaru ko benn góor ndeysaan suñ Muniru Sarr radiallahu anhu moo daan suma chauffeur dom <coughs> ba sambaay sumay suma chauffeur <coughs> bu ko rombee mu woo lu nekk la koy doye mu ko samb maa ngi lay dénk ki nga ki nga yeppal du du du du du ku ñuy waaw jusque booy dox ci tali bi bu nit di xëccoo yow yow priorité yow xëccool mucc waaye bu ko topp ca na muy xëccoo priorité ba tax nag ñu bëgg chauffeur yi itam dimbale ñu lool nag waaw bañ xëccoo bañ def ndànk def ndànk rek bañ a xëccoo benn priorité dimbale kër gi loolu ndegam ay taalibe lañu ndax itam mag mu bàyyi ay soxnaam ak i doomam di wuti yàlla ah, amatul yàlla leneen xew ca loolu nekk lu ñu gërëm kon nag ñu ñaan ñaanal leen rek ngeen góorgóorlu sëriñ baa ngi leen may wax yëpp ko wax surcharge ak surcharge ah, waaw surcharge yi moom ci li ñu leen di wax yëpp rek mm-hmm. euh, def surcharge oto bi waroon yàpp lii nga def ci lu ëpp juróom minute nga def ci fukki nit nag suma waajur ndeysaan yal na ko yàlla yërëm dafa jël benn oto buy def juróomi nit mu def ci fukki nit ak juróom la alkaati yi wala gendarme jàpp ko nag dañ ko yóbbu police ñu rey ñoom ñëpp ñu ko waaw ñun daal dañu bëgg nga won rek noo noo noo doon chargé oto bi bu fukki nit ak juróom daal ñu nekk te oto bi juróomi nit la wala boo nu ko wonee rek ñu bàyyi rek ñu ñu ngeen wax dëgg yàlla xaw ma ah ma ko xaw ma yaa ñàkk fayda xaw ma ñi nga yebe ñàkk fayda ndax mag mu day na wéy juram nga bëgg koo nooxu noox comme kuy noox mus loolu ah, loolu xarul la xarul la mel na kon dina leen yab rek li oto bi laaj bu dee juróomi nit yabal juróomi nit bu dee fukki nit yabal fukki dee juróom benn nit yabal juróom benn nit bitès bañ xëccoo dem ak dellu si ndax xëccoo dem ak dellu itam la muy indi rek xam ngeen su ko defee kon mi ngi ñaan chauffeur yi itam ndax ku ne mbir mu nekk am nga looy koy contribuer looy contribuer ci mbir mi chauffeur yi li ñu war a contribuer ci yoonu Tivaouane ci gàmmu mooy sàmmante ak code de la li mu leen wax rek ñu def ko code de la ku def li mu la wax niwuma doo accidenté de waaye du garaaw waaw mm-hmm. ah, accident bu méttee rek danga wàcc yoon waaw te suñu bàyyi bu baax ba alxaaji Faliilu Mbàkke radiyallaahu anhu daana wax ne daw bu baax di dal bu baax rek daw bu baax dal bu baax te dal bu baax nag ku ne xam ne ni ci oto jiggu ko ña ca nekk danañu gaañi oto ba dana yàqu di ñaan nag ngeen sàmmante code de la li mu leen wax ba ñu xëccoo lii sa wërsëg ngay jël mënoo jël lu sa wërsëg nga nga nga jóg sa loolu ngeen bàyyi ko xel sàmmanteeg yoon te bañ def lu dul yoon euh, oto bi vitesse biñ ko may bu ko passé lii sa wërsëg ngay jël nit ko moom du jël mukk lu dul wërsëg su ko defee kon nag bul xëccoo ak sa mbokk ba tax nga lor ay nit loolu baaxul sëriñ bi sëriñ bi bëgg nag yéen chauffeur yi li ngeen ko mën a dimbale ci bis boobu nag mooy rek def ndànk respecté euh, ñi nga yab ñi nga yabit la waaw euh, benn respect mutuel entre le voyageur et le chauffeur kenn ku ne jox sa morom respect bi ko war a jox mu di leen ko ñaan nag yéen itam loolu mooy seen participation ci gàmm gi mu may itam bisu yërmande la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ko yónni ngir yërmande wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin dama lay yónni pour nga nekk yërmande ñeel jullit yi yow itam nag fexeel ba yërmande boobu nga bokk ca boo defee kon da di def benn respect mutuel entre le chauffeur et le voyageur ku ne jox sa moroom xorma bi nga xam ne moom nga ko war a jox bi ci des muy suma mbokk commerçant yi ku nekk xam ne ni bis bu bis yërmande la commerçant yi danañ ci dugg am li ñu bëgg jaay si fi marhaban waaye am na ay place yoo xam ne kenn du fa jaay hmm. ndax dafay jegeñ sax doxukaayu oto yi ak doxukaayu nit ñi soo fa jaayee mën nañ la mën na la indi fitna indil nit ñi fitna te mooy booru mbedd mi bu jëkk mënoon nga ko léegi na ko ndax ni nit ñi toll ak ni ñu bare booy jaay ci booru mbedd mi dangay ngay xaru te nag nit du def ngeen bàyyi loolu xel bu jëkk moom borom gàmm gi di seen di xaymaari wala suñ baaw kër si daana wax nañu bàyyi nit ñi ñu toog fu leen neex waaw booba gàmmu mel ni léegi ku ñu bàyyi nit ñi ku ne toog fa la neex musiba il faut ñu réglementé ko toog leen fii toog leen faa toog leen faa loolu nag yéen ñëpp ngeen bàyyi si xel yéen jaay si euh, li njaayi laaj itam ngeen def ko mooy li ngeen di jaay na seel bañu jaay loo xam ne lii dafa périmé walla loo xam ne lii amatul njariñ jaay nit ki loo xam ne bu ko lekkee bu dee ndawku laa bopp biiram mën na foo daan ah, walla dat bi ñu ko limité woon ni fii la njëriñ li yam nga bëgg ko dépassé wala nga fekk li baax ak li périméwul nga jaxase leen pour jaayaat si kooku itam lor la te wor la te jullit bi ñu laajee sunu sëriñ lan mooy métier jullit def ni commerce ak mbay waaye bu ci nekk am na lu mu laaj fekk marchandise moo xam ni yàqu na ba bi nga ja jaxase ko bu yàquwul pour bu yàquwul bi mën a yóbbaale bu yàqu bi nga ñëw jaay ko nit ki mu jënd ko dem jaxase ko lekk ko biiram foo daan wuti kaw yow mu ko def kenn xamul la nga dem sa yoon loolu itam ci njaay mi la ngeen moytu ko fekk itam loo xam ne lii waxtu wañ ko waroon na doxal jeex na ah yow la nga ñëw ñu man dinaa ko jéem a doxal euh, benn fi nag yokk ko yokk prix bi ndax bés bi bésu yokk si prix la ndax duma ci mën am lu ko lu ko jar loolu itam du dimbale gàmm gi booy ñëwee kay lii mbir mi lu muy jar rek yem ci nag wala darar wala darar bul loru bul lore kiy jaay bu mu lor ki muy jaay kiy jënd bu mu lor ki muy jëndi loolu dëkk bi laaj ngeen doxal ko yërëmante rek kenn ku ñu yërëm seen wala koo xam ni sax mën nga wàññi prix yi mën ko wàññi ngir muy sa participation nga dimbalee ko Seydil Hadji Malick dimbalee ko njabootam loolu ci àq ñiy jaay waaw du fi kenn indi marchandise moo xam ni baaxul soo ko indee buñ la ci jàppee kenn du la yërëm eh, mbugal mi la ci war a mbugal dañ la ciy te bu boobaa doo dem ci kenn doo dem ci sëriñ bi doo dem ci mbokk taalib bi yi nga xam ne ñoo am organisation ndax bokk nañ ko waxtaane ba loolu du ñu yërëm koo xam ne kii da nga ñëw fekk marchandise mu périmé nga di ko jaay wala mu périmé mi nga jaxase koo mu périmé pour bëgg a ci temps bi jaay ko nit ki mën na ko lekk lu na dal ko ci su boobaa ñëw kenn du la yërëm luñ la jàppee yóbbu la police yi kenn du la yërëm kenn du la fa fekk dina teqale police parce que li nga def dafa grave te biir dafa dafa sensible loo ca dugal rek ca bokk ca doon la indil ay fitna ba nga waaw mën ca am ay coono bi mbokki Tiwaawan ñoo ko moom ngi jeex nañ ko daan defee nañ ko defee noonu yenn yàlla fay leen te dañ koy seetal dafa am importance loolu gis naa jële ci boroom réew mu jëkk bi fi nekk di président Senghor mu ni moom mi ngi natt sa personnalité ci sa toilette bu setee mel na mu war a mel mu fonk la xam ni yow ku bàyyi xel doomu aadama gi nga nekk soo ko defarul bàyyi ko mu saltee takk yu mu warul takk leen mu xam ni doo kenn loo tax ñaari daana def kër gu mu dugg balaa toog li muy jëkk wax ana bi ñu wan kooku mu daal di dugg tuuti génnaat ñëw toog lii ci lay natti sa personnalité ndax mët nga ko walla mëtoo wax na dëgg parce que nag beneen defar toilette yi ba mu set yi nga xam ni ci mbedd mi la itam ah tuwaaw na tolloon di foofu waaye nag wax dëgg yàlla ñi ciy def lu ñu mën état bi mi ngi ñuy jàppale dañu dem ni ko dañu bëgg nga abal ñu soixante toilettes moom Macky Sall soixante toilettes yu mobile ñu ni waaw ñu leen ko topp gàmm gi passé mu joxe ordre nañ ko tabax mu tabax trente yi déwén si ñu tabax yeneen trente muy soixante te taxul mu bàyyi ñu ngi continuer di tabax ba léegi loolu yëpp dimbali ñu ndax xam na ni Tiwaawan dëkk sutura la ki fi ñëw yooyu warul a jaaxal toilette ak foofa ja sa ajoog yooyu yëpp dafa nekk nécessaire ci nit ki Euh, dimbalee ñu loolu te ba tey bàyyiwul ñu ngi continuer wax dëgg yàlla euh, di ko tabax rekk muy dem euh, ñu gën a xiir rek waa Tiwaawan ci ñu defar ay toilettes yu bari rekk ndax teeroo ko gan yi dimbalee ko itam kii fi sos gàmm muy Seydi El Hadj Malick radiallahu anhu ba mën a teeru gan yi teeru bu rafet gan fa muy daal xaju fa waaw fa muy daal xaju fa da leen teeru xol yu féex kanam yu leer eh, ñu fexe itam ba setal mbedd yi bale ko ku nekk la wër këram la fa nekk ci ay ñax ay bant ay tilim tilim yëpp nañ ko jéem bale euh, xëy na Tivaouane mu ngi jëm ci moderne nekk ville moderne euh, religieuse comme ni ko borom tërale waaye nag yàggaguñ ci dëgg-dëgg waaye nag nit fu muy toog walla fu muy tëdd boo ko defaree mu set rek yow wàccoo nga ak moom su ko defee nañu dee ñaan yéen waa Tiwaawan ngeen seetal seen kër yi seen suufu garab yi nit ñi toog ker yi nit ñi toog euh, fi ñuy teeroo gan yooyu yëpp ngeen seetal ko seetal bi war euh, dëgëral ko boo ci manee def tuuti ciment ba mu dëgër nga def ko bu ko defee loolu dana sawarloo gan yi ci dellu si